présente, je suis docteur Cheikhouna Gaye. Je travaille ici à la pharmacie Fadilou Mbacké en face euh, en face de l'hôpital Nabi Choucair. Donc ce qui s'est passé dafa am benn benn benn benn benn patient bu ñëw bëgg benn garab bu bëgg jënd euh, teta Tetavax la bëgg jënd injection la alors que c'est un produit qu'on ne qu'on ne vend pas sans ordonnance waruñu ko jaay sans ordonnance alors mu ni ma attends je vais damay woote kër ga ñu envoyé ma ordonnance par WhatsApp léegi bi mu génnee dugg si waat wanuma ba tey wanuma ordonnance man ko garab bi kenn du ko jaay sans ordonnance et là il la commencé a crier sur moi il m'a dit que tu es impoli tu es idiot et moi aussi ma ma delloo ko ko mu mu yuuxu ma ma delloo ko ko mu ma tu je vais te faire regretter ce que tu m'as dit man ko allez-y on va voir après quelque temps après mu génn toog ba mu nekk ko alors que xaw ma ni commissaire commissaire la ndekete bi bi mu génnee mu woo wootee police parcelle bi mu wootee quelque temps après benn camion wàcce taxaw fi wàcce ay ay ay agent de police je ne sais pas agent de police leen xaw ma lan lañ ñu dugg ci pharmacie bi génne ma par la force et bi ñu duggee ci pharmacie bi ils m'ont menotté ils m'ont fait sortir par la force cassé vitrine yi fi nekk voilà génne ma par la force yóbbu ma yóbbu ma yóbbu ma police nii la demee alors que dama ni ko rek garab bi kenn du ko jaay sans ordonnance mu traité ma n'importe lu nekk wax ma ko ma delloo ko ko mu ne ma je vais te faire regretter ce que tu alors man ne ko man ma ma ne ko man ne ko c'est c'est ce qu'on va voir après quelque temps après mu mu mu mu woowaa mu woote police ay agents yi fi génn ma par la force manote ma yóbbu ma alors en en passage ñu ñu toj vitre pharmacie bi vitre bunt bi ak vitir euh, rayon yëpp ñu toj ko nii la demee. dafa civil wala dafa sol woon tenue solul woon tenue civil la woon ñëw taxaw. comme, comme, comme un patient qui a besoin d'un médicament, alors que le médicament qu'elle avait besoin, on ne le sort pas sans ordonnance. Donc, ni le demain. Nous sommes désolés vraiment ci li parce que nous des agents de santé publique. di liggéey suñu liggéey teg ko ci yoon taxaw fi pour santé population yi tey jii man damay ne Cheikhouna docteur Cheikhouna Gaye li mu def taxawaayu góor la def taxawaay pharmacien responsable def parce que bëri na ñoo xamante ne tey boo dikkee yor sa xaalis loo soxla ñu jaay fii nag yàlla dimbale nañu ba liggéey bi ñu ngi conformé wu à la législation garab bi warul génn te ordonnance amul ñu wax la ko ah ñun xamuñu kan nga de li yoon santaane rek la ñuy doxal parce que fii ku fi mun a dugg rek dañ lay considérer comme un roi c'est un patient patients yi seen wér-gu-yaram moo ñu fi bàyyi kon nag duñ fi nekk di def lu ñu neex ordonnance bi bu ñëwul duñ la jaay garab loolu warul indi coow ah ba yow nga dem indi sa doole jël say di jël say euh, police bi nga xamante ne dafa war a nekk pour la sécurité publique pour la sécurité de population nga ñëw ci benn nit xanaa ñaar benn policier sax xajul ci benn nit waxatumaa nag nga indi lu ëpp juróomi policier ñu dugg yàqate fii mais waxuma dara sax mais kii c' est un agent lui aussi assermenté le pharmacien c' est un agent assermenté donc du wax lu nekkul pour lan ñu di ko mënote du sàcc du pour pourquoi ñu di ko mënote léegi nag ñun nañ ñu wax ci ban dëkk la ñu nekk ndax ci dëkk droit la ñu nekk wala dëkk sàmba booy la lu waaye lu neex waaye mu def ku am sa doole jaay ko nit ñi bu dee loolu la nag pharmacie yi tey dinañu commencé mobiliser wu nag tëj ministre de la santé syndicat ordre ñu war a mun a taxaw nag joxe un signal fort ba pharmaciens ñu delloo si li nga xam ne ñoo ko moom le monopole revient aux pharmaciens c'est pas des policiers wala ku mu neex rek ñëw def lu la neex ñoom li ñu war a wax war waxuñu ko garab yaa ngi nii ñu di ko jaay ci mbedd mi bu ñu amee ñu ñu mënate ñooñu la ñu war a mënate mais ki nga fekk bu nekk ci biir liggéeyukaayam du délinquant du sàcc chaque jour ñu agressé nit ñi fii chaque jour ñu gis fii ñoo xamante ne ni liñ leen war a jàppee bëri nañ ay sàcc yaa ngi fi kenn agré kenn defu leen dara ñu ñëw fekk une honnête personne koo xam ne tey bu ñuy wax ne dañuy citer un exemple ci yar ak ci discipline ak ci correction dañu naan Cheikhouna Gaye nit ku yaru la naa taalibe la talul fu muy xeexe wala muy wax wax ju ñaaw seytaane nag mun na taxaw bu seytaane taxawee nag ñun ñëpp dañuy d'accord ne les responsabilité sont partagées te man mënuma d'accord ki dikk ci bërëb règlement bi moo fiy dox ah nga tëb di saaga ay insanité kooku warul jóge ci gémmiñu kilifa man bi ma demee mu ne ma man commissaire bi maa ñëwoon foofu dama jaaxle parce que man bañ ma interpellé dama ko woo di woote wallu woo commissaire parcelle parce que moo ñu gën a jege mu ne ma man mii maa fa demoon ma ne non ay agresseur ñoo fa ñëw mu ne ma man mii la donc c'est grave je pense que dëkk bi toll na foo xam ne il faut que ñu recadrer nag autorité yi waaw man de awma droit recadrer autorité waaye kenn ku nekk war nga xoolaat sa bopp ba booy dem ci sa nawle nga xam ban comportement nga fay yóbbu kilifa du njëkk a saaga responsable doo njëkk ay saaga violence verbale responsable moomu ko pharmaciens yi nag xaw nañu sàggan parce que ñun lu ñu teg rek ñu nangu masala bi nag ëpp na fi mu nekk nii dañoo war a taxawaat nag ministre bi taxaw bu fekkee ne ñun lay la fi nekkal ak population yi ñu xam bu fekkee nag daf fee nekk pour kenn ku nekk lu la neex nga dajale say garab nu la neex waxee nu la neex taxawee ordonnance léegi koo na indil sa ordonance population bi ne lank tëdd ci suuf bëri na fi ñoo xam ne toujours fii dañuy xuloo ci lan indil ordonnance parce que tàmm nañu gis garab ñu di ko jaay ci mbedd donc je pense que la police sénégalaise doit être au service des population ñun ñii nag rawatina ñun ñii nga xam ne dañu fi nekk pour la santé des populations police balaa muy sécuriser kenn ñun la war a njëkk sécuriser wax ji daal ñu ngi interpeller président de la république di interpeller euh, député yi di interpeller nag suñu ministre de la santé di interpeller le ministre de l'intérieur parce que nag lu ëpp tuuru ñun mënuñu fi nekk guddi duñu nelaw dañuy assurer une permanence pour la santé de population ñu duñu agressé te ñi ñu war a couvrir ñi ñu war a sécuriser ñooy ñëw nag léegi duñu agressé naka ngay jàkkaarloo ak sa nawle ne ko da ngay fen njëkk ko saaga te nekk kilifaam nit ki nag day roy ci ay kilifaam lu kilifa bi def rek administré yi topp ca kon nag nañu seetaat affaire bi pharmacie nag ku fi bëgg garab mu war a laaj ordonnance koo mun a doon dinañ la laaj ordonnance ak koo mun a doon nag ah dëkk bi de nañ ko seetaat de parce que fi mu jëm de ñax du fa sax te ñun nag taxaw nañu nag pour mobiliser nag mobiliser nag du ñu jaay suba du ñu jaay gannaaw suba fii la ñuy taxaw di sitting ci buntu pharmacie bi ba ba trois jours daal danañu sitting ci buntu pharmacie bi ku ñu laaj ñu wax li ñu metti